Amar <laughs> kàddu gàngoog. <laughs> Euh, mi ngi noonu euh, Youssoufa Diouf Papa euh, délégation national aux jeunes bu parti Awale Awale ñu bari dañuy wax baatu olof la Awale fii Awale fee mais lan lay tekk yéen ci yéen. waaw Awale c'est vrai am na signification olof. mais Awale bu dee sigle mu ngi signifier ànd wattu askan wi liggéeyal ëllëg. Mhm. ànd wattu askan wi liggéeyal ëllëg mais ci olof. Awale moom mooy firi wure yaakaar naa ñi yàgg fréquenté euh, ci suñu mbokk naar yi mm-hmm. ñoom xamoon nañ luy wure mm-hmm. waaw moom mooy wure mm-hmm. maanaam dañu bëgg a wuure awale Sénégal ci yoon loolu mooy aware tey lu bëggee tënk wuure bi am wure bi bul yi waaw bi am bul yi waaw ab jeu boo xamante ne xam naa ko objectif bi mooy gagné waaw comme tout autre jeu donc suñu objectif bi mooy awale Sénégal ci yoon ba mën a gagné loolu mooy awale mais mais Pape euh, Pape Diouf Euh, est-ce que yoon wi ngeen jaar baax na parce que da ngeen mais dafa mel da ngeen retouré gi parce que Abdourahmane Diouf ñëpp xam nañ ko ci politique parti mm. réew mi bu Idrissa mm. Seck. Mm. am na carrière bi comme li saa Sadi wax ñu bari naw nañ ko ci côté communication. mais man dama jàpp ne bu la ci wax juróom-bee. Abdourahmane euh, signifié wul ci politique lu bari. benn mooy bi muy jugee ci parti réew mi. dafa jóge ci réew mi mel na ku réer dem mm-hmm. dugg ci club des investisseurs mm-hmm. na bàyyi na politique mm-hmm. jekki ñëw dugg awale créé awale élection locale jot tëngeej kenn nekku fa moom ñu bari jàpp ne nekk mun mënoo du dem élection ci ku créer parti alors ko vocation parti mooy boo créer danga war a dem élection pour falu beneen bi ci mu dugg aar Sénégal aar Sénégal mu dugg fa réer complètement benn député la ñu am mu mel ne kon wuréew yi ngay wax moom wuréew yi dafa mel ne lu bu dee olof lay laaj da ko yóbbu nduluñ. merci beaucoup Omar. Ah. yaakaar naa sa question li mu ëmbee li mu laal li mu laal bari na trop. waaye may am benn benn benn rectificatif bu ma siy indi rek mooy Abdourahmane hmm. kitewul réew mi ngir club des investisseurs loolu ñu bari dañ ci juum. Hmm. Abdourahmane kitewul réew mi ngir club des investisseurs. Hmm. Abdourahmane bàyyi na réew mi bu yàgg. li tax mu bàyyi réew mi question de principe ndax candidat boo àndal ñaari élection présidentielle ànd ak moom ay législatif mosoo see xëccu dara mos laajte woo dara élection présidentielle nga ànd ak moom deux fois gañe woo loolu élégance mooy na ko mu bàyyi élégance may na ko mu bàyyi. Mhm. club des investisseurs man du ci sori parce que liggéeyam la. yàgg naa am ay yeneen contrat ci feneen fu dul club des investisseurs te Sénégalais yi bàyyi dem ci société civile bi. dafa mel ni day lamb foofu laay wax ak yow Omar bëgguma ñu commettre erreur boobu. c'est-à-dire bàyyiwul politique ngir dem club des investisseurs. club des investisseurs ci liggéey la mu la bokk. amoon na a liggéey yu mu doon def. ak feneen ak yeneen yeneen yeneen cabinet yeneen club yeneen entreprise te tey espace politique bi yëguñu ko woon donc club des investisseurs liggéey si liggéeyam la woon bàyyiwul politique ngir dem si si club des investisseurs c'est erreur boobu dañ koy commettre te faaw faaw ñu leeral ko sénégalais yi mhm. dafa bàyyi réew mi dem nekk ci liggéeyam mhm. tey ba gis ne Sénégal kat ni muy doxee nii moom am na si cër mhm. te yaakaar naa parti bu juddu boo xamante ne amagul sax ñaari at tey fu mu toll nii ak Abdourahmane ni muy enrichir espace bi bi gis neen ni moom Sénégal yëpp gis nañ ne am na cër ci biir espace politique bi mhm. moom moo tax mu ñëwaat di politique mhm. mais donc mooy mu ñëwaat rek l'erreur qu'il ne faut pas c'est de dire que Abdourahmane dafa bàyyi réew mi ngir club des investisseurs mhm. voilà waaw ah, bàyyi réew mi mais choix yi muy def ci politique est que choix yu baax la mooy élection jot nga créer parti ne dew ma surtout Tëngéej local beneen bi mooy nga dugg aar Sénégal mu doonoon choix boo xam jiital Abdoura kii Thierno Alassane Sall nekk ci ginnaawam ak Aar Sénégal li leen doon jiiñ yëpp te yeew yi nekkoon fekk yeneen coalition eh. ñu bari jàppoon ni du choix yu baax lay defi politique. waaw d'habitude euh, choix politique mosul mën a yomb choix politique d'habitude mosul mën a yomb euh, tey élection locale yi nga njëkkee wax ku xam élection locale xam ne ak li mu laaj. Hmm. ñun suñu parti bi ñu koy créé bi ñu koy lancé c'était à quatre jours bi ñuy arrêté dépôt liste élection locale. Hmm. donc foofu mënoo fay dem parewuñu wuñu woon quoi pour dem élection locale mhm. c'est vrai que yàgg nañoo liggéey ci lancement parti bi mais bi ñuy officialiser suñu parti pare woon. ñu ngeen dugg dans les coalitions comme ni ko ñëpp defee. non mais tey jii ñu bëri bëggoon nañ ko. Mhm. ñu bëri mais ñun dañu nekk ci parti bu démocratique parti boo xamante ne tey question bu mënti am bu ñu mënti aborder dañ koy teg ci table bi. c'est vrai que Abdourahmane tey moom mooy jiital parti bi mais tey question a a wax décision mu war a mën a jël dañ koy teg ci parti bi. Mhm. teg ko ci digg bi gaa yëpp xalaat. te dañ bëgg nekk ñoo xamante parti boo xamante ne ku si nekk da koy respecté xalaatam ku si nekk nga respecté ko position am. yaakaar loolu moom moom moo gën a a doxal affaire yi. moom moo tax bi gars yi décidé mooy kuréel gi nga xamante ne décision parti yëpp fa lay génn. ñu toog ne dinañ ñu ko nangul. beneen bi mooy suñu dugg ak Aar Sénégal. Aar Sénégal bi ñu siy dugg c' était comme toute autre coalition suñu objectif mooy gagner. suñu objectif nekkoon ci gagner te gëmoon nañ ñi te ba tey ji dañ ko gëm mënoon nañ indi troisième voie gëmoon nañ ko tey ji nag c'est vrai que après élection yi les sénégalais on ont, ont toujours raison comme on le dit ñoom ñoo xool ki leen neex ñu fal ko te jox nañ ñu jox nañ ñu ay voix les sénégalais jox nañ ñu ay voix. peut-être suñu objectif mooy fal Abdourahmane atteindre ñu ko woon. waaye ñu ngi siy sant yàlla bu baax te loolu tamit tax nañu mën a wu pour élection ñu jëm. voilà euh, waxtaan wi am na solo te ni ngay communiquer am na solo loolu mooy wane ni parti yi léegi moom euh, defe naa ni nit ñi faaw ñu wuti xam-xam bu ñu bëggee def li nga xam ni mooy politique. te loolu lu baax la ci penc bi. mais man dama ne Abdourahmane euh, man bi ma ko génn gisee mu génn mu mu génn di wax commencé loolu dama ne moom pour man erreur bi mu def mooy bi mu jógee ci Idrissa Seck kenn waratutoo ko jiitu. maanaam dafa war a nekk koo xam ni day jiite parce que ay idéem ak xam-xamam ak tamit euh, ay waxam ak yooyu élégant bi nga xam ne am na ko ci wàllu wax donc pour man loolu mooy choix bi nga xam ni bi juum na fa est-ce que nang di nga partager ak man loolu ci li nga xam ne mooy njuumte gi nga xam ne man moom laa jàpp parce que man Abdourahmane pour man bi mu génnee dafa war a demal bopp parce que man wartoona sax dugg ay réew mi man parce que xam-xam bi mu am parce que genre nit ñu mel noonu pour man Sénégal soxla na leen quoi est-ce que yaakaaroon ni foofu erreur am na fa. non man du ma ko tuddee erreur. Hmm. Sa Ndiogou du ko tuddee erreur. parce que hmm. xam nga moo tax. Abdourahmane boo xam-xam dafa yaru. waaw Abdourahmane yaru na trop Abdourahmane fa joxe cër. am na xam-xam. Hmm. Abdourahmane décision bu muy jël dina xool ndax décision bi su ma ko jëlee. est-ce que dina peser à l'intérêt des Sénégalais ou à naturellement il marche comme ça ku yaru la. tey xam-xam bi nit ñi di wax gis-gis li ñu si ëpp cest à fi ñu koy gisee mooy toog si télé yi débattre ñu laaj ko si question mu indi si xam-xamam mais Abdourahmane boo ko jegee fréquenté ko si nga xam ne nit ku yaru la nit ku mën a joxe cër la mm-hmm. loolu nag bokk na ci loo xamante ne tey poussé na ñun ñun ñu ànd ak moom poussé nañ ñu ànd ak moom mais soit bu mu mën def comme ni ngeen def nii actuellement xam nga da ngeen demal seen bopp dëggal seen bopp léegi créer seen yëfi bopp demal seen bopp mu jiite ko est-ce que yaakaaroon ni noonu la waroon Abdourahmane waroon a def bi mu jógee ci Idi parce que pour man mu demoon ànd ànd ak Idi erreur la parce que bu ñoom boo seetee li leen Sonko ñoo yem daanaka même discours te ñoo bokk même gis-gis moo ko ay Sonko mais Sonko dafa ñëw demal boppam moom mu ñëw ñoom ñu ñëw jaar ci politiciens yi nga xam ne yàgg nañ fee ne. Mhm. est-ce que du loolu tamit du erreur. mais tey tey xam nga question bi dafa xaw a contradictoire hmm. parce que soo ñëwee ne ma Abdourahmane ak ñeneen ñi ñëw bokk benn discours. tey sorewuñ quoi laa la bëgg a wax non non sorewul. donc hmm, sorewul mais je dis que Abdourahmane tey. Hmm. si landerneau politique sénégalais amul kenn ku ko si gën a ku ko si xam-xam amul kenn ku ko si gën a miin état amul kenn ko si gën a miin état si landerneau politique bi. Abdourahmane am bin état c'est-à-dire c'est ni ñuy doxal ni ñuy ni ñuy doxalee dëkk hmm. ni ñuy doxalee dëkk loolu moom c'est un expert non non du ñuy doxal dëkk day fekk ñu mettre la à l'épreuve nga mës a nekk dans un gouvernement wala dara mais. léegi nag léegi loolu ñu ñëpp ñoo si war a liggéey. Hmm. ñëpp ñoo war a ñoo si war a liggéey c'est-à-dire mettre ko à l'épreuve parce que ay xam-xam wane na ko fu nekk partout au monde. Hmm. wane na ko partout au monde. comme fan ak fan tey bi ñu ko bi ñu ko hmm. bi ñu ko nommee par exemple SONES. Hmm. bi ñu ko nommee SONES mais si xam-xam ak mën liggéey si loolu lañ ko daaxee parce que nguur gi fi nekk muy nguuru Macky Sall xam nañ ni du ñu ànd ak kuy liggéey ñoom du ñu ànd ak kuy liggéey. Ah, liggéey mais SONES SONES moom euh, SONES moom même bi ñu ko nommee SONES moom ñun askan wi jàmbat yi ñuy jàmbat benn jàmbat la léegi lan la liggéeyoon. loo xamante ni bii mooy tax ñun askan wi ñ xam ni liggéey na liggéey bu rëy. xam nga SONES six mois la fa def. si biir six mois yooyu dafa def benn visite yëmbal. Mhm. dafa def waa yëmbal ñoo ñëw ci moom. Mhm. ne ko kat ñun mosuñu rencontré directeur SONES. waaw donc tey bu ñu toogee yow noo def ñu wax la jafe-jafe waa yëmbal. mu ne leen jafe-jafe lan la mu ne leen ndox mi ñuy naan baaxul. Mhm. mu jël ay ingénieurs SONES ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu ndox. ànd ak ñoom dem yëmbal passé fa une journée xool ndox mi. ci ngoon gi mu génn ci télé bi ne. phrase boobu bañ na ko ba xale yi awale sax dañ koy répété l'eau que nous buvons dans la banlieue dakaroise est d'une potabilité douteuse ni la ko waxee mhm. teguñu ci quelque fan ñu dàq ko <laughs> te imagineel imagine leen moom moo jël <laughs> ingénieur yi loolu wax moom dëgg la <laughs> mais tey loolu dafa am bërki démb bërki démb ci guddi euh. bërki démb ci guddi dama jógee euh. réunion awale ñëw toog ubbi sama robinet pour naan mais dama tuuraan ndox mi mhm. te ba mu ko waxee gi def na dix ans mhm. dix ans man Tëngéej laa dëkk falaa laa juddoo fa laa yaroo. Mhm. ba banlieue Dakar waat la waxoon. Mhm. tey ñu ngi si région bi booboo gën a pire. Mhm. ba tey def na dix ans si loolu lañ ko dàqee. mais ñu ngi euh, jëm ci 2024. Mm-hmm. ñu ngi jëm ci élection présidentielle euh, ku mel ni Abdourahmane mm-hmm. moom ak ñi nga xamante ni c'est vrai mi ngi aar euh, aar Sénégal. non nekkatul génn na fa. d'accord léegi nag bu fekkee ni dafa am benn projet boo xamante ni bëgg na ko jox sénégalais yi bëgg na sénégalais yi xam. lii mbébétam ci biir Sénégal mm-hmm. est-ce que commencé na ay jéegoom jëm ci biir Sénégal di dem amal ay visite de proximité ak projet yi bu dee am na ko lan la bu dee am na projet bu mu bëgg euh, waaw jërëjëf question bi dafa ma neex trop neex na ma trop sax <laughs> parce que dañ nekk récemment si àll bi di liggéey ci tournée yëg-yëg Kaolack lañ mujjee jógee d'accord Kaolack euh, amoon na benn riir sax ndax boo amoon na benn riir bu baree baree baree bëri dem nañ Touba dem nañ Tiwaawoon Touba rek def nañ fa lu mat une semaine. dem nañ ñu wër si àll bi dem nañ fi Tamba yooyu yëpp def nañ ko donc mooy tournée yëg nag yëg-yëg bi nga xam ne moo toog peut-être koor gee tax. Hmm. ñu ñu ñu stand by ko mais incha bu jógee ci koor gi le président Abdourahmane ak waa Awalé. moo tax ñu jógee ci àll bi non <laughs> pourtant pourtant pourtant délégation yu nekk ci ci département yi ñu ngi def def liggéey bu am solo. d'accord ñu def récemment dinañ lancer benn campagne boo xam te ne nemmeeku jàmbaar Awalé yi lay doon fépp jàmbaar nekk dinañ la seeti ñu def euh, lu am solo màggal ne kat ñun waa Awlé lañ bokk loolu c'est important 2024 ñu jëm nag Abdourahmane li mu teg sénégalais yi ñëpp gis nañ ko mu toll nii. Hmm. ñëpp xam nañ ko lan la te parce que ñun dañ bëgg a dañ bëgg a nekk parti boobu. te dañuy génn wax neex dañuy génn non wax daal mën na ko. tey sa programme da koy wax. Hmm. sénégalais mën ko dégg. waaw man tey lu suis pour ñi nga xamante ne dañuy wax seen programme que di ko bind. parce que tey soo xoolee Sénégal fu mu toll. du ñëpp a mën a lire du ñëpp a mën a ah, lire am na ñuy bind xotti de. ah dem ba ci biir xotti ko. non ñun bokkuñu si nag. <laughs> jëlaat beneen programme. non ñun bokkuñu si. non ñoom dañuy wax ñun bokkuñu si. Ah. ñun li ñuy wax dañ ko bëgg di jëfee. parce que ah. tey hmm. awale dafa bëri ay cadre dafa bëri ay borom xam-xam. dafa bëri ay ay ay ay ay ñoo xamante ne tey bu ñu la waxee si jaay gerte ndax def jaay nañ gerte bu ñu la waxee si maçonnerie nga bind téere ndax nekk nañ ay maçon mhm. tey bu ñu la waxee si njàngal njàng ak njàngale bi nga bind si téere ñooñu voilà ñëpp a ngi ci biir awale mhm. donc ñooñu bu ñu indee seen xam-xam ñu teg ko war ko jaay sénégalais yi sénégalais bu ñu dégloo dinañ xam ne ñii liggéey nañ ci loolu ñu mhm. chance boobu am nañ ko biir awale moo tax suñu parti ko ak benn parti seen visite de proximité yi biir Sénégal lan la jur jur na lu baree baree bari parce que jur tax na tey sénégalais yi xam ni kat Sénégal am na benn candidat bu tudd Abdourahmane boo xamante ne kii ku ko jox dëkk bi doo ko rëccu li ñu si njëkk jàng mooy loolu la xalif généraux yi ñëpp si xam-xam ci yar ci teggin ci joxe cër. mais est-ce que nekkul ñaar opposition dama bëggoon dafa am loo xam ni. Mhm. tudd nga xam-xam mhm. xam état mhm. ak maîtriser ko. ñu gis ni maanaam moom am na ci benn morom ci réew mi boo xam ne dafa am lu ko xaw a te gis naa ne moom Abdourahmane dañ koo boole dañ koo nuróole muy ak dal ak yaru muy xalifa sàll mhm. mhm. ba seetloo xalifa dalam gi am na lu mu ko xañ mhm. donte ne am na lu mu ko may te xalifa kenn euh, nattabliwu ko am xam-xam la léegi est-ce que dalug Abdourahmane googu bu ko toppee dina am fu mu ko jëmee mooy yéen fu ngeen bëgg mu dem fa parce que réew mi dañu boo dalee ñu nëppaaje la dëgg la jàll ndax jàpp nga ni bu demee ci rythme bi di ngeen am fi àgg fi ngeen jëm waaw xam nga yar moom li ko ni ko olof di waxee rek yar lu mu la mayul du la ko la ko nekk mosoo gis ku xëy xamadi ngeen baal ci terme yi. Mm. ba am ba am ci lu baax musta am. Abdourahmane ni mu mel noonu ñun mënuñu ko dindi. non pas pas xamadi mais. ci yar dal gi waaw li nga xam ne euh, par exemple Ablaye Wade xadar gi mu amoon ci politique. Mm. nga xam ne bi mu ñëwee gis dafa ñëw rek daal Sonko dama ko estimer parce que dama ko gis ci sama bopp. Mm-hmm. Ablaye Wade mu ni dafa tolloon fa mu tolloon jamono bi muy xeex ak Abdou Diouf mm-hmm. léegi ñu gis ni Sonko bi mu ñëwee gis nga dafa fexe xeex ba bokk président Macky Sall mii ñu naan tey dafa yaru wax na fi lu ne suñ pap maam ji fi kii moo tax man est ce que Abdourahmane bu jaaree ci rythme bi dina gañ mais xam nga xam nga tey xadar googu ngay wax Abdourahmane ñi fi nekk si di politique yëpp kenn ëpp kenn ëpp ko xadar ah oui kenn ëpp ko fit coow ñi fi nekk ëpp ko fit kenn ëpp ko kenn ëpp ko xadar Abdourahmane li mu tënkee ci mhm. nekk séeréeru ki ñàbbul kenn ëpp ko fit loolu man maa leen ko wax tey mhm. man maa leen ko wax te si fan yi néew parce que ma yëgal leen Macky Sall dafa bëgg nangu kër Abdourahmane hmm. waaw si poolu pooru Ndaayaan bi Ndaayaan waaw loo xamante ne ñëpp ñëpp ñi ne ci plateau télé yi dañ ci war a investir parce que injustice gënul rëy loolu lan moo tax ñu bëgg ko nangu li tax ñu bëgg a nangu dafa jaarul yoon acquisition bi wala lan la koo xamante ne danga dem liggéey ñàkk jënd génne sa alal jënd terrain tabax ko yóbbu fa sa njaboot Abdourahmane def na def na def na bitim réew vingt-deux ans moom moo jékki saa ñibbisi indaale njabootam ay doomam yëpp fa lañ juddoo mu indaale leen ñëw toog tabax këram teg ci bi mu tabaxee këram état ñëw dafa am projet fi fi mu tabax këram mhm. projet bi mooy port de Ndayane bi ngeen di dégg projet bi bu ñu njëkkee tracé dañ ne woon deux cent cinquante mètres deux cent cinquante hectares lañ soxla ñu tracé xëyaat newaat six cent hectare xëyaat ne waat mille cinq cent hectares te bi njëkkee tracé kër ma jambal jaañ dañ koy hmm. tudd ci tracé bi la bokkoon mhm. indiwaat beneen tracé jëluñu ko de. Mm-hmm. Macky Sall ak ay nitam. Mm-hmm. dañ ko tëb indiwaat beneen tracé génne kër ma Madiambal Diagne dugal si kër Abdourahmane fu mu toll nii Abdourahmane il day ñëw si plateau yi difficilement. Mm-hmm. difficilement tey jii nii tey mardi jour ouvrable boo demoon préfecture bu Tëngéej di ko fa fekk. oui boo demoon préfecture bu Tëngéej di ko fa fekk. donc ji ngeen loolu yëpp Macky Sall di teg ci kawam ndax lan ndax lan. waaw mais dañuy koy nangu noonu rek euh, noonu. Euh, nangu ko pare ci que xam ngeen Macky Sall amul amul dédommagement amul dara xam nga yooyu yëpp dina am mais loolu c'est pas important. Ah. si la moo tax. loolu. waaw mais ñu taxaw tuuti. fii gis nañ fii. BRT bi ñi mu randal ak ñëpp. Ah. ñëpp dañ leen dédommagé. Euh, bi ñu bi terre bi aussi waat <laughs>

xam yoon def décentralisation xam ci wàllu demal lu bare baree baree bari tey bu fekkoon dañ ñëw pour yëkkati këram teg ko dans les règles de l'art en respectant yoon bi mu ko mayee mhm. tey jii Abdourahmane avant sax avant sax ñoo koy moom mooy génne boppam man loolu c'est ma forte conviction ak xam gi ma ko xam mhm. mais tey commencé fekk nga tracé kër ma jambal bokk si mhm. bokk ci biir li nga tracé kër Abdourahmane Diouf bokk si candidat déclaré opposant de taille Macky Sall xam na ne Abdourahmane Diouf opposant de taille la parce que ko jaay dara dara donc nga préféré. non non tracé waat opposant de taille bi delluwaat dugalaat ko ci mbuus mi. lu tax loolu non que nekk gu lañ ko tamit opposant de taille dafa am lu koy wane. balaa ñuy wax opposant de taille da dem ay élection yoo xam ni. représenté ngeen dara. léegi non non mbir mi ci xam-xam d'accord nañ ci xam mais opposant de taille moom. Euh, mbooloo koy wane pourcentage wala déet. Mm. Ah. boo ko amul moom munoo wax opposant de taille. pourtant du loolu. waaw ah, non non bul wax opposant de taille. loolu retiré loolu nga continuer sa waxtaan. xam nga tey. Mm. li ma tuddee opposant de taille. waaw waaw tey Abdourahmane Diouf bu waxee tey Macky Sall dafa am benn mm. tendance bu muy def mooy lan dafay faral parfois di wan image international que ni Sénégal tout va bien. Mm-hmm. léegi nag loolu bu koy def day am boroomi kaddu yoo xam te seen seen seen bu ñu jugee rek seen kaddu bu ñu waxee rek seen kaddu dem na au niveau mondial da leen moytu parce que Macky Sall tout ce qu'il fait c'est essayer d'avoir une image internationale Abdourahmane kaddoom c'est au niveau international gis ngeen interview bu extrêmement bu mu def T25 Monde donc si côté boobu laay waxee ah. te côté bi ngeen jàpp ne yéen moom mooy opposant de taille ñun awalee ah, un an lañ amagum un an lañ amagul te wër nañ Sénégal njaay tey fépp foo dugg ci Sénégal boo awale xam nañ ko boo nee Abdourahmane Diouf ñu ne mooy ku bëri xam-xam coow mais est nekkul genre opposition bi ngeen def moo arrangé Macky Sall ban opposition mooy de proposition de contribution toog ci plateau yi di wax Macky moom yooyu dérangé wu ko mais Macky Sall ah, Macky yooyu yëngalu ko ah, loolu moom yëngalul xam nga yéen xam nga yéen ah, est-ce que mënoon def comme Sonko eh, dëgëral dëgëral bi xam ngeen wax naa leen sànq xam ngeen wax naa leen sànq awale dafa Abdourahmane am nu ñu ko yaree. Hmm. mais dama leen wax ne sànq Abdourahmane li muy suivre li muy subir tey en tant que opposant hmm. man mën naa dóor sama loxo si kaamil ne benn opposant subiru ko. Hmm. mu nekkee. Eh, mais Diouf xoolal non li nga déglu ma nag. saa eh. bàyyi ko mu yow déglu ma nag booy. ñi ngi wax nag mais fi nga dugg nag moom nooyul. parce que li nga wax noonu. saa ko mu leer mënu léegi bàyyi mu leeral ko. yow opposant bi gën a sonn ci Sénégal moom lépp xam nañu Ousmane Sonko. mais ça ça léegi bàyyi ko Sénégal yëpp loolu ñëpp xam nañu. ça xanaa am na loo yëngu. lu muy dund lu ñu xamul. Abdourahmane mais psychologiquement moom dem na ba fële sax di. moom Abdourahmane dem na ba ci xalif général Medina Baye. fàtte problème am. lii nekk ci yeneen bi mu wax kii ne ko Macky sa copain la moo ba da nga fàtte. wala waxu ko woon. wax naa la dama koy suivre lu bari. wax bi mu naan ko Macky sa copain la mhm. xanaa war nga ko wax nag pour ah, mais li wax ni dama ni donc loolu moom xam nga li nga xam ne mooy fitna gi nga après dinaa ñëw dinaa ñëw si dinaa ñëw xalif xalif daa daa waa Pastef dinaa ñëw man ni Pastef di doxee daf maa neex non loolu du fan loolu kii la non loolu kii la nangul nangul sa waay Omar bul Omar bul bul ci yooyu waay Omar Omar bul dugg ci yooyu waay parce que tey tey bu mu ñëwee ne Adja yi yërëm bi rafet na loolu xol bu rafet laa ko waxee ak yéene parce que dafa am parce que ñàkk iñaan la dafa am moo tax ma wax ko mais Abdourahmane tey Abdourahmane toll na foo xamante ne laa ñun ñi ànd ak moom mm-hmm. du ñu nangooti Abdourahmane jiit nekk ci ginnaaw kenn mm-hmm. loolu mais dañ ko xam beneen bi may ma tudd may ma ñëw ci sànq li nga wax ni Abdourahmane da koy faral di wax te bi ngeen juddoo yàggul te demoo leen fi élection ban ma leen Abdourahmane bàyyi leen mu taxaw danaan dañuy créer grand ensemble ci politique. maanaam ñëpp ànd. mais bu ñëpp dee ànd il faut mu am ko jiite. Hmm. mais Abdourahmane ni mu toll ci politique bu opposition bi yëpp daje woon Abdourahmane mun leen jiite tey ji le chef de l' opposition ñëpp xam nañ ko Sonko la. tey yow yaa ko mën a tuddee chef de l' opposition. tey ah non non mais moom la yow am solo. ah non bi ma naan bi ma naan tey. pression bi Abdourahmane non ça. waaw léegi bàyyi ko mu développé waaw mais pression. Ah, <laughs> mais parce que yow boo démarré boo démarré kii foofu nga fi taxaw yow ma ne taxawaay ban laaj taxaw léegi taxawaayu mathématicien laa taxaw mathématicien boo duggee foofu en a a beaucoup de raisonnement y a raisonnement par y a le a raisonnement bàyyi jàmm waaw dama dama ko maa ngi ñëwaat bi li yàlla yàlla ah, ah, ah, yàlla raisonnement par récurrence <laughs> yàlla raisonnement par absurdité eh, loolu yëpp si ay raisonnement mathématique la hmm. mathématique mën nga mën maanaam tàmbalee raisonnement par absurdité li ngay wane ni la à nga montré ni c'est vrai Sa Ndiogou nag yow ko am xam-xam nga maa ngi koy doog a xam. Hmm. parce que da nga ma da nga ma permettre may rappeler samay cours première année merci beaucoup. Ah, beneen bi mooy souffrance bi ma doon wax si xam nga wax naa ko sànq. Eh. nee naa Abdourahmane li muy subir man. ak man xam hmm. waa Sendou waa tubaab Jalaaw fa dëkk ñooñu pression bi Abdourahmane di subir man mën naa. dóor sama loxo ci kàmm kenn du si biir ko da may bàyyi ma expliquer tuuti bu fekkee ba ngeen bi neex. waaw que tey. wax naa sànq Abdourahmane dafa def extérieur vingt deux ans xëy xëy ay doomam fa lañ juddoo mu indi leen ñu ñëw jàng ci Sénégal mu tabax kër état ñëw parce que lan il est déclarant dafa déclaré ne candidat la aux élections présidentielles. est-ce que loolu la. mais moo ma jaaxal. xam nga tey dama leen ne Abdourahmane xam na yoon. ne Madiambal dooleem ji jaaxal na. xam nga Abdourahmane xam nga Abdou Abdourahmane dafa xam yoon tey même commission yi nga xamante ne moom war a mën a tax ñu dédduwaane ñu dédduwaane nit ki wala ñu dédommage nit ki bu ñu lay yëkkati remplir ñu si dara dara dara dara bañ na ko ba bu ñuy gas léegi guddi la ñuy gas. waaw léegi da nga ni bi ñu njëkkee nag waaw parce que foofu man c'est c'est très important ñu leeral ko mhm. da nga ni bi ñu njëkkee di wax dañu ni deux cent cinquante hectares lañ soxla mhm. ñu ñëwaat ni six cent ñëwaat ni mille xaw ma lan mhm. mais ma jambal moom fu mu situé wu ci hectares yooyu ma jambal daal mu moom boo bëggee dégg dëgg dafa bëgg njëkk bokk si tracé bi gars yi njëkk moom comme que gars yi xam nañ ko moom waaw moom xam nañ ko yaa ngi dégg jëkkee bokk si ñu tracé. déedéet xanaa ba jàmbale gi lépp yi génn xanaa. gis naa ko lépp yi ne ko doo fi tabax. gis naa ko yaa ngi dégg. <laughs> Mm-hmm. de toute façon daal xam nga affaire bi li ñuy bañ. Mm-hmm. mooy ku am ndey bi ku amul ndey. waaw loolu waaw loolu moom je suis d'accord vraiment. premièrement deuxièmement bu jóg ñëwee ku war a jóg jógal. mooy bien Abdourahmane ñëw na fii si si si Walf wax wax ko fi. waaw cadrage juridique bi gars yi respecté wuñu si dara. Mm-hmm. dara te loolu ñoom dañ ko tàmm man tey sama kër papa fi mu nekk si Tëngéej terre bi da ko impacté woon. Hmm. léegi terre bi da ko impacté woon. mais dugg nañ si ingénieurs yi dugg nañ ba si biir suñu biir yi néeg natt def lépp poussière dañu xaw rey dañu xëy xëy rek ne financement bi disponible lul. tey suñu kër c'est à 3 mètres terre bi 3 mètres. kon de doo leen nalaw. pour dédommagement 3 bi 3 mètres terre ba tey jii noonu lañ ko bàyyi waxaatuñ si dara. mooy dédommagement bi. te ingénieurs yi ñëw nañ ba dugg suñu biir yi nekk. waaw kii bi euh, temps bi jeex na. waaw mais dama bëggoon rek mu wax ñu présentement. lan la ñu lan la rek tooñ laa bëggoon may ma ci tuuti. parce que bu demee ba Abdourahmane naan Idriss Seck dafa war a bàyyi candidature ñëw jàppale ko. parce que moom ah, moom mu nee na moom defal na lu ne Idriss Seck. waaw cokkaas la aussi. Ah, xam nga tey ànd naa ji. xam nga tey politique Sénégal politique Sénégal dafa commencé changé. su ngeen xoolee y a une nouvelle génération buy ñëw boo xamante ni am nañ jaar jaar. am nañ xam-xam. Mm-hmm. di nga ñooñu. il est temps ñu jox leen place bi. Ah ah ñu bàyyi leen ay président Macky Sall warul bokk ci élection yi loolu ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. par A ou B warul bokk. na ut candidat bu dee moom waa benn bokk yaakaar am nañ fulla la wax de am nañ fulla nañ ut seen candidat ñëw samp ko mu jànkonte mu mu mu mu mu jongante ku mel ni Abdourahmane Diouf ku mel ni Ousmane Sonko beneen bi Idrissa Seck tey mm-hmm. Abdourahmane Diouf defal na ko lu ne. mais Idrissa Seck war na mën a ñëw. humblement humblement war na mën a ñëw rangé wu si ginnaaw <laughs> Abdourahmane Diouf. c'est tout simplement ça buy wax loolu day foo rek waaye xam ne. a topp ci ginnaaw keneen lu tax xalaatu leen ni keneen mën a topp ci ginnaaw non parce que moo ko mos a jiite a Idi Abdourahmane topp ci ginnaaw Abdourahmane tey dafa am tey ji awale et son et son président dañu am réalité ci biir espace politique bu sénégalaise loolu nañ koy bàyyi ah, xel euh, te un an lañ am hmm. d'accord un an lañ am meruñu meruñu ber ngemb loolu nañ ko <laughs> xam meruñu ber ngemb awale mooy le seul parti bi nga xam ne dafa am gaarwaale ma parce que d'habitude Sénégal loolu moo fi am dangay nekk ci da ngay ànd ak nit xëy xëy mu def la dara nga mer ber sa ngemb yaa ngi dégg waaw li may tàggatoo mooy jërëjëf am mbégte ak kontaan ñëw ci plateau bi plateau plateau bu neex la macha allah. <laughs> plateau bu neex la am na am na xam-xam génn na fii. Mhm. kaf nañu reetaan macha allah. Mm. donc di nuyu waawal faj bi yëpp. di rendre hommage aussi euh, le président directeur Sidi Lamine Niass. di ko ñaanal suñu borom. jéggal ko yërëm ko xare ko àjjana. di euh, aussi euh, ñaanal papa yi Omar bi nga xamante ne tey ji la anniversaire am. Mhm. suñu borom aussi jéggal ko te yërëm ko yërëm bépp waajur. man aussi sama waajur dafa génn àdduna à bas âge. donc yàlla ko yàlla jéggal moom tam xare ko ak bépp waajur daal te bàyyi ñu fi ñi nga xamante ñoom lañ fi desee di am mbégte di leen yégal nekk rek. Mhm. la jeunesse de Awalé au niveau national dañu am benn ndogu bu ñuy def. <laughs> kañ ndogu bi euh, <laughs> ñu may la ko kañ. ginnaaw suba la le treize jeudi ñu ngi koy defee fii buntu école normale. waaw d'accord donc ni ngeen ni si ñëpp ñëw ñu xam ne Awalé. merci lu bees ñuy woote ban bu ñuy mayee ndogu dañuy woote lu bees. waaw d'accord donc na si ñëpp na si ñëpp ñëw. d'accord am mbégte am kontaan euh, jërëjëf. li li wu Fatima de Sey la Fatima Fatima boole ko moom. <laughs> ah Fatima saa de Fatima xaritam la de. Ah, ah, rusé ko Fatima saa ah, kon mi ngi loolu. di la gërëm bu baax di gërëm Fatima déggante nañ sànq. waaw euh, kontaan nañu aussi tamit euh, macha allah. Mm-hmm. Euh, parce que bu ne bëgguma wax sa âge mais professeur mathématique mooy wane ni teel na jàng mais aussi teel na jug. Mm-hmm. di la ñaanal nga def carrière bu am solo. may wax saa bëgg dugg ah, ci mat bi boo duggee ci mat yi <laughs> merci beaucoup Diouf ah. kaddu ajarat kaddu gaagool. <laughs> yaa ngi koy fekk ci domaine am ayca mi ngi noonu merci beaucoup Pape Youssouf Diouf le délégué national aux jeunes du parti